beneen bi ci des lu euh, luñ ko jox kon mooy yor euh, PCA Grand Théâtre kilifa euh, kilifa. Grand Théâtre mooy Mbessane Grand Théâtre suma juumu culture la. te kilifa yaakaar naa mu ngi ci wàllu culture bi. salle de spectacle. rappeur la suma juumul ak yeneen ak yeneen. yoo hmm. xamante ni mu ngi ci biir. donc man daal du ma def lu dul féliciter leen. Hmm. d'accord ci tamit ànd ci à 100 pour cent parce que tamit nag wax dëgg yàlla bu fekkee ni liggéey moo leen tax a jóg. te yaakaar naa ni liggéey moo leen tax jot ndax léggéey leen sóobu woon ci dem voté ji pour coalition Diomaye mhm. am ndam léegi nag bu yàlla dogalee ci ñoom ñu wóolu leen seppi leen indi leen teg leen pour ñu liggéey dañ leen di encourager ñaanal leen yàlla li ñu leen tànnee ba teg leen fañ leen teg yàlla nañ ko mate loolu daal ci gàttal moom laay wax. <laughs> ah dama koy féliciter di ko encourager parce que fonds de développement des des cultures urbaines moom nañ ko moom nañ ko moom nañ ko fal. moom nañ ko président fal. ma fàttali ne ne. kuy kile mu nga fa mooy kile mu nga fa ah, remplacer Moustapha Dieng. Moustapha Dieng bi nekkoon bi <laughs> loolu xam nga lan la man loolu tax lu ci communiqué rek. ce serait nekkoon xaritu Macky Sall. waaw nekkoon xaritu Macky yóbbu woon gaa yi ci Macky Sall li ma wax daal mooy. président da nga ne loolu c'est important ah. leeral boobu waaw loolu c'est important dama koy leeral nit ñi mooy maanaam euh, kii président Diomaye tànn di kila nit dof di Mortalla Gueye. Mhm. c'est un patriote convaincu c'est un patriote qui est digne d'exemple. Mhm. Mhm. loolu dama ko xam je l'ai côtoyé en dehors de la prison à l'intérieur de la prison et toujours toujours il a gardé le même profil. il n'a jamais changé. événement mars yi li mu ci sacrifié ci projet bi il a resté presque quatre ans di mu France. sa famille et là-bas en France soo xoolee gis nga œuvre sociale yi mu def dëkkam dëkk cosaanam fi ñu suul papaam. Mhm. suñ la ko waxoon da ngay yëm yàlla. Mhm. man li tax ma xam ko benn détenu poli benn détenu bu tudd Amza dañoo nekkoon chambre 14 nit daf nekk chambre 17 ñuy wax ne Amza dama yéen da ngeen xamul mortal gi man dëkk bi ma bi dëkk. fa lañ suul papa mooy dëkk cosaanam mais dëkk boobu def na bañ am ambiance chaque année ay tubaab de France indi ñuy faj nit ñi. di jàpp nit ñi di fa may ay ay ay ay kii solaire. macha allah ay électrification solaire. Mhm. institut yooyu yëpp taxawaay boo xam ne nii vraiment dafa extraordinaire mu nekk un exemple digne de son boobu laa xam ne nag kii ndekete jàmbaar la du jàmbaar nag ci wàcc ci terrain bi xeex ñu jàpp la tëj la du jàmbaar ci rab bi parce que euh, gis nga kii la derrière le micro mooy mooy mooy Mhm. kan Mota la ñu dof waaw la. gis nga grève de bi ñu defoon vingt cinq jours yi rëbës bi ñuy bi ñu suba président Sonko ne képp ko xam ne nii ànd nga ak moom ci li muy xeex na nga ko jàppale ci grève de la faim damaa fekk sama cellule dama jóg mu ne ma grève yow loo xalaat suba ma ne ko ah man de xam naa naa grève moom damay grève mu na noonu dama bëgg yow yow loo xalaat loo loo décidé da ngay grève pour quelques jours wala ma ne ko non man damay grève rek président comme ko jox na digg bëgg yow nga bokk ci jàmbaar yi xam ne nii Ousmane Sonko du ci wéet. Hmm. même suñuy dee nañ dee fii ci kaso bi mais bu mu ci wéet c'est hmm. sérieux hmm. ci daal toog tëdd di xalaat nit dof ko waa ko xam ne mënoon naa toog France dem lijjanti ay million gis nga soo observé concert boobu muy def. mais bañ ko annulé il a perdu presque vingt millions et quelques. c'est vrai loolu xam nga Sénégal dañuy fàtte. tey ñu nommé ko loo xam ne nii ki mu remplace ab rappeur la comme moom te gëm naan kii la nit dof. le don soit pour la patrie. Mhm. li mu jox boppam ngir réew mi. ki mu remplacé wallaay xaaj ba xaajaat bi ñu mu ko def xalaatu ko sax. li mu xaj boppam ngir. li mu xaj boppam ngir Sénégal. Mhm. wallaahi dama ne poste bi soo ko joxul koo koy jox keneen. c' que loolu la quoi en lan moo ci def débat yi quoi. Mhm. fekkee euh, l' autre là keneen ki def PCA grand grand théâtre aussi kilifa mbisaan man fekk mbisaan sekk man fekkente nañ maa ngi moom rëbës 2021 bi ma fay am 17 jours yi. boobu mi ngi si boobu mu amoon nag affaire visa yooyu mi ngi ne ko chambre 42 ma déggante teg moom mais moom laa njëkk gis rapport boo xam ne nii ñëw na kër président Sonko seet si ko mooy ci événement mars yi ci problème convocation bi xam nga ko kenn mëntu ko présenter Sénégal yi léegi. 2012 mm. man fekk na ma Diourbel boobu maa ngi def terminal Diourbel ñun ñoo tëne woon les manifestation de Diourbel man Bassirou Faye insulte ak yooyu. nga xam ne seen njàmbaar dañ ko woon Sénégal. kili kilifa damaa gëm ne su bëggoon poste si Macky sa la koy amee fekkoon xaalis si Macky Sall la gën a yombee nañ wax dëgg rek kon choix yi président def man wax dëgg yàlla je réitère je réitère mon engagement et je à les accompagner à travers ces choix yaa benn question li lu ngeen xaar ci état bi mhm. bi ngeen xeexee pare mhm. ñu li ñu xaar ci état bi mooy accompagner leen rek comment ñu accompagner leen dan nga leen accompagner ñu réussir rek nan si acte yi ñuy teg mhm. ak képp kuñ fal nga yéene ko nga xam ne loolu tu n'es pas plus méritant que moom. Mhm. loolu quoi loolu mooy la doon choix pour la patrie ça pas dire que am Diop Taïf yow responsable Pastef nga coordonnateur communal xeex nga li ngay xeex tëj nañ la grève ga de la faim institut ak ñàkk nga say liggéey ay yoon yoon léegi nag non dañu war nguur loolu su amee kon dañuy répéter encore les mêmes de mais mhm. poste yi ñu jox nañ ko jox ñu ko gën a mérité mhm. loolu soo ko defee nit ñi dañuy tàccu te dañuy prêt à les accompagner loolu la quoi le don soit pour la patrie esprit fraternel da cee nekk passif paix bi mooy fraternel. Hmm. li Samba da nga wax dafa am solo nee na paix daf ñoo topp ñun. fraternel mooy nga yéene sa li ngay yéene lu baax sa bopp nga yéene ko sa morom. Hmm. ñun ñëpp nañ yéene ñii ñu fal. dañ ko mérité d'abord am nañ expertise bi am nañ engagement bi mais aussi dañu war a réussir. Pape Sadio. waaw bon man la nomination de Nit Doff ak euh, comment il s'appelle encore. Hmm. kilifa bon maa ngi koy rafetlu ah d' abord volonté bi la volonté de récompenser d' abord des militants qui se sont engagés euh, qui mis en jeu d' abord euh, leur vie euh, seen carrière ñu ensuite ñu nekk ñoo xam ne nii li leen jox xam nañ ko dama koy rafetlu. Mm-hmm. mais quand même j'ai des par rapport à la nomination de Kilifeu. des réserves. a beaucoup de réserve mm -hmm. c'est pas que li ñu ko jox mënu ko parce que il peut PCA mm institution comme le Grand Théâtre c'est un homme de culture qui est très engagé euh, et connaît job mais comme dafa nekkoon ci ay problème justice son dossier était pendant devant la justice mhm. dafa doon dafa doon jaadu ñu bàyyi ko ba ñu vidé loolu ñu soog ko mhm. sinon dañuy jam jam yoo xam ne nii euh, maanaam duñ ci ah mën dara mhm. waaw man daal ah, waaw mooy dossier passeport waaw waaw waaw loolu loolu loolu loolu loolu dañ ko waroon vider ba pare mhm. ñu soog ko nommer sinon dinañu jam-jam yoo xam ne nii duñ ci man dara boo xoolee les réseaux sociaux depuis ce matin loolu moo nekk foofu la moo nekk débat mais sur le plan le plan de la valeur ils ont la vidéo la vidéo ba amoon bañ waaw le plan de la <laughs> parce que parce que loolu li ñu réussir encore ba léegi ah, mhm. li ñu réussir mooy que sur le plan des nomination bi ñu commencé depuis trois mois kenn mënuñoo jam mhm. parce que les nominations ont été des dañ ko réussir d' abord les enquêtes de moralité ont été gisoo fi kenn ñuy contesté mhm. gisoo kenn ku fii jam gars yi di ko jox di mhm. ko jox ku ñu nomé nit ñi di ko jox mais c' parce que c' parce que y les enquêtes de moralité dañ ko réussir les profils ñi choisir on les a réussi ensuite Euh, ça a permis parce que Sénégal mënoo fi def lu lu rëy nit ñi. moo fi nommet nit ñi xam nañ ko. Mhm. donc comme réussir nañ loolu. Euh, le cas de Kilifeu waroon nañ xaar ba ñu peut-être aussi léegi ñi ko nommé dañoo fàtte que ne son dossier était pendant devant la justice mais je pense que sur ce plan là amul amul lu ñu laam laamee que ne poste bi ñu ko jox mën na ko assumer. Mhm. c'est un homme de culture qui comprend la culture. Mhm. Mortala aussi fañ ko nommé xam na ko. on n'a pas nous sommes dans le domaine de la culture on n'a pas mm-hmm. besoin d'être de, de grands universitaires mm-hmm. am ay doctorat ñëw taxaw li ñu la laaj mooy nga xam li la jox mën nga ko wala mënuloo ko tey je sais que par exemple Mortalla ka fa nekkoon moom xam naa ko bu baax Morta mais Mortalla sur plan sur le ak mentalité bi Mortalla y a pas bokkuñu mm. y a pas gis nga gis nga li wax nii euh, gis nga nit daf wax naa ko kaso bi mm-hmm. nee ko yàlla xam ne Sénégal yi bokk nga ci misère yaa Ousmane Sonko ñu